kuréel gi am ñuy ji neef police moo faat seen ay doom amal nañu ab doxu ñaxtu tey ji ci ngoon waa kër Fallou Sène Abdoulaye Timéra Elimane Touré Seck Ndiaye Pape Sarr ñëpp dinañ fay teew. Fallou xarit la woon ci Pape moom nag ñaawlu na torop ni mbir yi demee. di ko ñaawlu quoi parce que. doomu aadama suñu borom moo ko teral quoi euh, yaakaar naa ne war nañ ko traité neneen lu dul nga koy taal su anam yi ñu ko yi condition yi ñu ko defee métti na ba fu métti yam mu nekk loo xam ne lu ñuy ñaalu la si ci ci ci réew mi fii Saliou Sarr dañ ko accusé ay xar euh, ma ñu ngi gis li ñuy lire ci presse bi ñuy wax naan un présumé un présumé laadum moom euh, papaam mooy yar laadum boo ñëwee suñu koñ caaro yi kër papaam mi ngi quatre box yoo xam ne laadum laadum la ciy yar papaam ñun papaam ñun soxlawuñu ay xar moom ci boppam dafa am ay xaru boppam ba léegi nii mi ngi police yu caaro yi procureur moom la ñuy xaar mu bind kayit pour ñu dem jëlee ay xaram la preuve mooy ki saacoon xar yi jàpp nañ ko nii ki jàpp ki saacoon xar yi jàpp nañ ko ba defeere ko kon xam nga ne kon dañ ko tooñ nga ñuy ñuy wax ne ay Saliou saar moom moo taal boppam ñooñu dañuy wax lu leen neex Saliou Sarr xoolal liggéey jaamu yàlla moom téer la papaam mooy yar ay xaram moom téer la moom papa mooy yar ay xar xar ay xaram ni ngi police ni instant yi ñu téye. février la fàtte woon foofu ci commissariat du port bu ñu sukkandikoo ci kàddu nijaayam El Hadj Alé Seck li am ak kàddu yi nga xam ne police wax na ko dafa waroo. ñu gis ne Elimane bi ñu koy jëlee police yam di ko yóbbu police port policier bi ko jël si woon police yëmbal woon ak Elimane Touré jox xaalis ci kanamu ñëpp. ñu gis ne Elimane bi ñu ko jëlee police yëmbal yóbbu ko police port matul ñaari waxtu ñu wax ñu ne Elimane dee na bi ñu ñëwee police wax ñu ne dafa xaru mais la mu ñu wax ne da cee xaru police da cee waroo ndax policier bu ñuy wax Saliou dañu fii la forêt boobu takk boppam ca suba sa porte parole police ne Elimane lal ba mu tëddoon dara ba la jël pendre boppam mais ñun ca guddi ga Elimane gaañoo dugg nañu cellule ba. gis ñu fa lal gis ñu fa darab ñu xam ne kon police dafa wax lu dul dëgg seen porte parole ba mais ca suba sa altine ba ñu gisee kooru élimaan tudd gis nañ ni élimaan mi dañ ko gaañ lenn mandargal ne élimaan dafa xaru mais lu bëri mandargal ne dañ ko dóor ndax gaañu gaañ yi am ci bopp bi yi mu am ci loos bi ak yi mu am ci nopp bi donc élimaan même autopsie bi dañu loos bi dañ ko damm donc ñu jàpp ni ñooñu nga xam ne ñoo laale ci deewug élimaan Touré mooy policier ba ko jël si woon ca kër ga ñi laale ci deewug élimaan Touré mooy policier ba ko jël si woon yëmbal yóbbu ko poor ak policiers yi nga xam ñoo ngi ko yoroon en garde à ñooñu ñu jàpp ne yoon dafa war a tegu seen kaw te dañu bëgg enquête bi nga xam ni moo jëm ci mbir yooyu enquête boobu mu nekk enquête boo xam ni police waru ko mën ñeneen ñoo ko war a ndax police mënul bokk ci ñi rey ba police ko ne di mën moom mii amoon na ay gaañu gaañu ci ab boo xam ne ñu ngi ci joxoñ baaraamu tuuma oto bu police sax kii mu àndaloon di xaritam bii di Abdoulaye Timéra ci la jaaree génn àdduna Maguette Cissé moom nag ñaawlu na teewaayu oto police bu mu jàpp ne accident boobu amoon ñoom ñoo ko def waaye it mi ngi wax boobaak léegi mbir mi amagul dara lu ci leer. comme que boobu ba léegi depuis cinq mois ngi nii justice amul ñu ne woon dañuy def mobilisation ñi nga xam ne ñëpp seen famille affecté nañ leen ci affaire de violence policière bi ñu dajaloo fi ñu def marche pour kaas ko parce que boobu ba léegi ñu dara amuñu avancement amul dara. ba ba léegi amaguñ ci dara jëloon nañu ay avocat mais ba léegi amaguñ ci dara lu ñu leer dañuy fas yéene def marche cas suñuy droit comme que mënuñu am dara ci policiers yi dara ci avocat yi dara ci affaire justice moom ñu defal ko ci ñu bopp ñu sol defal suñu yére dugg ci biir dëkk bi kaas ko. ci yooyu kàddu lañu eggali seen doxu ñaxtu jëm fi nga xam ne mooy RTS waaye it ñu ngi réclamer li nga xam ne mooy justice. nous justice. Nous réclamons justice. Nous réclamons justice. Nous réclamons justice. Nous réclamons justice.